naka daal dina fa yëkkati ab benn discours bu am solo dinañ ci daal di ñëwaat jàngat ko euh, waaye bu ñu daal di koy dooree ak li nga xamante ni moom moo di communiqué yeewu bi ñu bàyyi nga ñëwaatal ñu ci. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Amina. Mhm. communiqué yeewu askan wi nag euh, nii rek la daal di kon nag euh, tëddee. mooy groupe parlementaire yeewu askan wi daal di ñuy ñaawlu dénoncé li nga xam ni kon dañoo jàpp règlement intérieur assemblée nationale. daal di koy caxat-caxatee violation grave et flagrante dafa sax daal di leer nag lu ne fàng la kenn du ko jeex ci assemblée nationale googee te kenn defu ko kudul njiit la di Amadou Mame Diop ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député Benno ko Yaakaar yi ci ab réunion boo xam ne kon ci conférence des présidents amal nañu ko alxamis juróomi fan ci weeru septembre ci 2024 dañu leen a convoqué ngir daal ñu daal di nag euh, fixé Euh, datu euh, affaire yi nga xam ne kon dañ ko inscrire ci ordre du jour session extraordinaire bi nga xam ne kon ubbi nañ ko juróomi fan ci weeru septembre septembre ci deux mille vingt quatre ci convocation njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay membre group Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne nag maanaam fi mu nekk nii seen xol yi daanaka moo raw gaz bi taan te itam. <laughs> lañu bëgg daal mooy wàlluk fayu koo xamante ni nii nag. maanaam yor nga café bëgg a tàngal boo jëlee seen xol yooyu boo ko ci tegee moo raw gaz ñooñu nga xam ne ay revanchard lañ rancunier communiqué yeewee ak moo ko bind ba noppi aigri am coxor goo xam ne ko nekk ci ñoom nag dafa mujj kon euh, jéggi dayoo ñooñee nag daal fi mu nekk nii euh, ñoo bëgg a taxaw salfaañe jéem a yàq euh, li nga xam ne ñoom dañoo yàqule ba pare di seen motion de censure ba nga xam ne moom la ñu préparé woon nag te mbir ma tàbbi géej loolee tax na ñu jël kon ab calendrier wu liggéey wi kon nga xam ne nag euh, ku ko dégg sax ak ko gis nañu ko bindee xam ne lii kon lu irréaliste la daa mënta ne parce que daa toogul du dañuwul ba tax nag fi mu nekk ni le kon seenug liggéey parlementaire boobee dugal nañ ci daal loo xamante ni nii jekkul rafetul efficacité bi nga xam ne kon moom lañ ca doon xaar di ko xaarit ci représentant wu peuple bi mbir moom itam dañu ko daal di caxat-caxate seen stratégie boobu nag nga xam ne dara taxu koo jug daal lu dul saboté ak bacle liggéey bi nga xam ni kon ab député moom la war a liggéey ca pencu ndawi réew ma loole kon defuñu ko te ñëpp xam nañ ne session extraordinaire boobee jàpp leen ne nag dana jeex dafa war a jeex fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 2024 pour nag ñu daal di kon fixer date déclaration de politique généralu u euh, président Amadou Mame Diop dafa imposer datu le 11 septembre 2024 te loolee ba mu koy imposer nag dafa caxat-caxatee maanaam daal di kon piétiner violer volontairement nag moom moo ko tey lu jëm ci wàllum disposition wu euh, article 97 u règlement intérieur bu bees bii nga xam ni euh, daal di nañ koy adopté bu assemblée nationale le 16 août 2024 président de la république ñëw dëggal ko promulgué ko le 30 août 2024 article boobee nga xamante ni nag la mu waxtaal ca assemblée nationale dafa leer assemblée nationale boobee ca boppam war nañ ko ni yëgal juróom-ñetti fan euh, ñuy jàpp date woo xamante ne nii kon date retenue euh, ngir nag ñu def kon déclaration de politique générale délai boobu nag moom jàppal ni minimum la gën a gàtt mooy juróom-ñetti fan yi waaw mbir mu ni mel nag xam ngeen ne moos euh, daa méngoowul ak waa Bennoo Bokk Yaakaar lii nga xam ni kon moom la ñu liggéey waaye Yewwi Askan Wi ba léegi ne la yemuñ ca. nee nag fi mu nekk ni lee daal lii moom moo waral ñuy pëtëm pëtëmee di def seen benn précipitation boo xam ne kon jéggi na dayoo euh, te ñëpp xam nañ ne assemblée nationale boobee am na lu tolloog euh, fukki fan euh, ak juróom ginnaaw nag ba ñu ubbee session bi le 5 septembre ngir kon defar liggéey ya na mu ware waaye loolee daal taxul ñoom ñu jël ay kàddu yoo xamante ni nii dafa tegul fenn daal di nag euh, caxat-caxatee lu jëm ci wàllu ni mel ñoom député Benno Bokk Yaakaar yooyee nekk ci calcul goo xam ni calcul gu jéggi dayoo la bu rafetul te kenn jiitewu ko ku dul Amadou Mame Diop moomee ak waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne jël nañu dogal ne danañu forcer kon premier ministre bi Ousmane Sonko wañ loxoom ngir mu daal di dikk def nag déclaration de politique générale euh, jàppale na nag euh, forfaiture bu bees googu yi nga xam ne kon ñoom dañ koo defaat du leen a ludul ab mbirum wuyu woo xam ne kon moom la ñu def di banditisme institutionnel wuyu woo xam ne eh, jàppal na mbir mi du dox eh, ak nag jàpp li nga xam ne moom mooy cartum réew mi loi yeeg yu ni mel football faale wuñ ko sax mépris dëgg la indi ci wàllum loi groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nag fi mu nekk nii la ñuy sàkku daal mooy ñu daal di respecté yi nga xam ne mooy charte yi lal na kër gay doxee di disposition règlement intérieur rawatina nag article 97 bii nga xamante ni nii Euh, euh, ngir ñu amal euh, déclaration de politique général fait à Dakar le 5 septembre 2024. kon nag lii mooy communiqué wu yeewee askan wi soxna Amina. Mm-hmm. jërëjëf honorable xam naa ma dem ci Socé laataa ma ñëwaat ci yow Socé ma bàyyi la nga nuyoo après nga jàngatal ñu communiqué bi. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi mm-hmm. leen di nuyu yéen ñëpp. Mm-hmm. di kontaan bu baax dellu siwaat ci émission bi. di gërëm yaaw saas mi fi jóge léegi euh, soxna Aminata seen nuyu nañ la Aminata di gërëm honorable député di nuyu mbooloo mi ñi ñuy seetaan. waaw lay fay. bu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mbooloo mi ñuy teewlu. maa ngi lay fay. waaw ci réew mi ak biti réew ak fépp rek. café gi tamit ci boole. waaw kafe gi tamit nay ñëw di dal gaa yi. soo sa benn kaasam hmm, gi dee leen ci sóoraale gaay yi. Ah. Ah, Abdou Fall. Ah, ñu yor desk kafe yéen ñi des desk café si dégg nga. tey de da ngay day di soxna dañoo mel ni ku ku ku ku seen yaram yi mel ni lu nagam. Ah, lu xew da ngeen a ndékkeegul wala da ngeen ah, xaw ma danoo ndékkeegul xaw danoo ne ci projet. wala yéegu leen guro. lu tax hmm. xaw sax ah. teel a négligé. ah. yaram moom daal xëy rek lànk. yow bi kon soose. Ah, ah di. ah man de damaa dugg. mooy gisoo ma mel ni maa ngi mel ni kuñ daakaane doo mos dara ndax nga yëngu. daaw kay loolu dafa war a mos. mosoo dara daal yi la. Ah. mosoo leen dara doo mos lu la yee. doo yëngu de maa raw eh, mbasin bu ñu daakaande. Mm-hmm. maa ngi maa ngi ne kàdd de. non la après dina tàng quoi. dina tàng waaw ah, kon kon <laughs> Abdou kon ñu meñcee ah. ah maintenir leen dana baax. <laughs> waaw communiqué bi daal yow soxna Aminata. mooy lañ doon waxtaanee fii démb rek wax dëgg yàlla euh, man démb fii laa ne euh, motion de censure du am déclaration de politique générale du am oh. waaw te du am nag <laughs> loolu moom dama koy réitéré. <laughs> te doo ko <laughs> du am. dafa dul xaj. non en fait xaju fi ñii ñoo ko fi bëgg a xaj xajal mais xaju fi. bu fi xajoon sax est-ce maanaam man li ma li ma jaaxal mooy démb damaa déglu Abdou Mbow muy wax ci rajo yi maanaam dafay dafay moom ci boppam dafay avouer. une précipitation boo xamante ne suspect <laughs> maanaam li li ñuy li ñuy parax-paraxee parce que booy xool les trois points ni ñu ko tënkee maanaam bëgg ko patam patamee noonu rek pour mu jàll pour ñu jàll ci déclaration de politique générale loolu moo tee xel en fait mm-hmm. parce que des questions aussi sérieuses ñu inscrire ko à l'ordre du jour war nañ mën a jël le temps qu'il faut pour évoquer ces questions travailler ci techniquement comme ni ko assemblée daan defee mm-hmm. mais question yi nga bëgg ko limiter bëgg ko tra bëgg ko lijjanti ci ay heure rek. waaw ci benn fan nga war nga war ci def ñetti non mais loolu c'est extraordinaire uniquement pour évacuer loolu rek pour fexe ba déclaration de politique générale ñu mën ko def le onze. du fi amee loolu mooy première jafe-jafe bi deuxième jafe-jafe bi tam mooy la violation flagrante. Mm-hmm. du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. article 97 communiqué bi détaillé na ko. assemblée am na dañ ko war a informer huit jours avant démb lañ réunion ñoom tënk li ñuy tënk jàpp seenu date le onze parce que ñoom ñoo la gën a xam ne le douze waa ji day tas assemblée mais yëfu yëfu yëfu tappale la daal mm-hmm. affaire tappale dëgg dëgg dëgg la Amadou Mame Diop def na ma baal ak tout ak les députés de Yewwi de de de de de Benno parce que yàkkamtoo ñu dul waa ji ñëw le onze et loolu nag dafay traduire ndeysaan maanaam Ousmane Sonko dafay am dëgg tout le temps seen kaw maanaam ñoom déclaration de politique générale bi li leen ci intéressé du le contenu de message li leen ci intéressé mooy nañ ko déglu mu wax ba pare ñu dugal motion daaneel ko ñoom loolu dong leen ci intéressé. ak xas ko ak ba mu ne toot mais loolu mooy politique politicienne bi nit ñuy jooy di ko ñaawlu mooy lii nag lii bëgg koo bëgg koo fiiriir <laughs> mais loolu rek lañ bëgg. wallaay. leur combat gis nga bu ñu ñëwoon wax lu lu lu benn premier ministre mën mësta wax rek intéressé wu leen ñoom. Mhm. ñoom lañ toog di ko déglu rek ñii ngay nelaw ñii di seetaan ay série mu mi ngi noonu daal. ñii di seetaan cœur di seetaan ay cœur brisé ñii di seetaan ay Pod et Marichou. déet waay. non mais euh. que waa ji li muy wax intéressé wu leen. ñoom li leen intéressé mooy. mission bi ñu am te benn mission la mooy daaneel son gouvernement kese. maîtresse d'un di seetaat maîtresse maîtresse d'un homme marié. réeroo ngi am ci plateau bi nag. lu ne xaw na fa di. assemblée léegi yëpp ma bete bete ñii di xool bete bete. assemblée ñii ne ci Facebook bi am na ñoo xam ne Facebook la ñu ne. ñii di làqatu di seetaan amet ci suuf revue de presse beeg nañ maa ngi dend ak ñoom. maanaam li waa ji wax ñoom intéressé wu mais wax dëgg yàlla man pour man li gàcce la daal maanaam maanaam gis nga booy dem demal demin bu rafet mais dem boo xam ne maanaam ñoom dañoo nekk di siisu.